Yo. Yo. It's dead in this town. Euh, bonjour à mes téléspectateurs de la VFTV. Euh, on est ravis d'être là Qui euh, club sport académie étude Binek à la cité ouvrière euh, sunu nous euh, bu dëkk ci cité bi dëkk Diourbel doomu Bawol euh, daal di koy nag taxawal muy Pape Seck tey nag dañuy waaj dem ni stade dem xol xalé yi ci liñuy yëngu topp leen toute la journée ngoon gi aussi dina am benen programme bu fi am bo xamanteni dañuy rendre hommage des personnes yu nga xamanteni ne c'était des références référence nekkoon fi nek suñu ay wajur nek ñu nga xamanteni ni nii dañu daan guidé ah, ci lolu nak dama koy bayé cadeau gi mu daal di nuyo expliquer leen académie bi un peu comme ça nit ñi mëna comprendre parce que nak bu len fàtte académie bi ah, nit ñi dañ koy bayé xel depuis le niveau international té ñun VFtv lolu mom ñun ñoo ci ay Pape. salam alaykoum Khar maa ngi lay dalal di le remercier donc ñeu fi donc di interview ci académie sport étude bi. Merci. Alors, Sport Academy étude donc tout bela bagon ham inspiration binan le dédié à bandan koko créé exactement une activité le fi le fi le fi génie des défis, parce que ça n'est que nous venons qui n'y a pas halé l'année entre 10 ans ça je peux dire ou le moins de 10 ans j'aime kau euh, expliquer nous tout tout pour que c'est à nous comprendre waaw académie sport études euh, donc une euh, ngi nekk cité ouvrière donc euh, l'union wax coopérative bio bi nekk ci cité daal Ngank, parce que coopérative bi mon bot. donc académie bi ñu ko créé maanaam ci 2019 juste avant Covid 19 donc mu ñëw reprendre école de football bi nga xam ne feu Serigne Diop ku nekk xam ko Diourbel nekkoon euh, donc euh, infographiste bu mag don yëngu lu bëri ci walum football mom mo créé woon école de football bi boy xool sa xalé yu bëri yu jaar jambar et tout ci loxom lañ jaar donc euh, ak mom lañu sumbon liguey bobu nonu noonu créé woon académie sport étude bi. légui nak sport étude mom boko ko rek moy la nga xamné da fay bolé sport bi ak étude bi donc allier les deux loolu mo taxone ñoomoon idée bi ne dañuy def ben académie ba nga xamné day boole sport ak étude pour tàggat xalé yi ci ñaari pàcc yooyu yëpp. alors euh, euh, la yan activité lañ fi def est-ce que ñoom dañ fi loger fi lañuy ñuy fi lañuy ñuy defee wala est-ce que buñu amé ay entraînement lañ fi dajé wala est-ce que da ngay def ay casting de recrutement comment ça se passe. waaw académie bi euh, donc euh, lu ñuy wax mooy euh, régime externat la externat nag boo ko déggee mooy maanaam xale yi duñ fi dëkk seen kër la ñuy dëkk donc ñoom dañ fi ñëw rek ñu leen di tàggat suñu paree dellu seen kër donc dañ ko def comme ni mu amee tugal am fépp boo demee Europe xale yi chaque mercredi ak samdi dañuy dem def sport donc dañuy def sport fii nag donc modèle boobu la ñu jëlaat donc ñoom dañuy ñëw chaque mercredi ak chaque samedi donc daal di def euh, seen sport wala ñi nga xam ne dañoo war a def étude def seen étude suñu paree donc delluwaat seen kër donc euh, li ci am solo moo nekk donc dina tax xale bi moom bu jàngiwul école dina mën a am fa nga xam ne dina fa dem ñu tàggat ko yokk ko donc euh, si wàllu boobu booy xool moo ñu niñ ko teggé donc xalé bi dina mën def sport sport nag buñ ko waxé du football kese xeyna football moy sport bi nga xamné mo gëna siw mais amna na sport yu ñu fiy def lu jëmee ni si basket lu jëmee ni si karaté lu jëmee ni si euh, euh, li ñuy wax aussi handball ak sax ñu ngi mbébét ne bëgg nañ dem sama xale yi mën a pourquoi pas di def tennis et léegi tam si wàllum njàng bi tamit donc lu ñuy def mooy dañuy fexe ba xale bi moom di jàng anglais di josi jàng informatique ak aussi lu ñuy wax wàllum accompagnement scolaire mooy xool jafe-jafe yi mu am si eh, scolarité am donc ñu ko si defal renforcement donc loolu moo nekk donc euh, pàcc yi nga xam ne moom moo donc tënk académie bi si wàllum sport ak d'accord j'ai envie aussi de comprendre comment ça se passe avec la coopérative parce que je sais cité dama doon une coopérative bi rek xam naa ñi am solo surtout que euh, presque consommer local la mais euh, comment ça se passe parce que je sais que pas mal de personnes se posent la même question que moi. la coopérative bi fait euh, coopérative ba nga xam ne slogan euh, créé par des vols, pour les vols, Donc, donc nous euh, une coopérative qui nga xam fait dafay liggéey euh, donc mbay transformation et exportation donc euh, matière première yi nga xam dafa am Sénégal et surtout ci Bawol donc euh, coopérative bi ñu ko créé depuis 2015 donc nous yi nek fi yeb cité un groupement yi ko jéggi na sax Diourbel dem na ba ay euh, Kaolack Fatick ba ci Ziguinchor ñooñ ñëpp di liggéey ci wàllum coopérative bi léegi nag coopérative boobu noonu moom moo jur tey académie bi parce que académie bi parce que boo xoolee coopérative dafa am li ñuy wax benn volet donc euh, social ak euh, surtout bi ñu demee ba am commerce équitable donc nak si walum euh, volet social boobu si lañ ne donc dinañ jéem xol projet ba nga xamné xeyna dina jëriñ askan bi donc jëriñ xalé yi donc ñu ne kon nañu parrainer donc académie bi lool motax donc coopérative bi tay ji mën nañu wax né moy premier partenaire académie bi. D'accord voilà amis téléspectateurs yaakaar naa né li len wax doyna len dal na sen xel muy lu am solo tamit parce que fi réew mi toll wax dëgg fa yalla genre coopérative humaine ni nii dafay dimbale jigéen yi waye tamit da fay gëna suqali dëkk bi euh xana diko jaajëfal bu baax baax te diko wax né que ñu désormais on est partenaire d'office euh, ci lu ngeen mënti ti ci lo xamanténi ni nii lu jëm ci coopérative bi la wala sax suñu doom yi nga xamanténi ne nii euh, déjà moy sen moy sen amour li lañ bëgg euh, su ko defee ñun dañ ci daal di ñëw indi leen lépp li ci nekk bu soba yalla waye nak

mais bon intense parce que naaj tank amul amul daw bu baax lu yam ngeen def rek ñu jouer mais bu ngeen jouer amul gaañante amul weexante liñ leen liñ leen sant ngeen def jarul sax ngeen def leen lo xamné ne bokkul ci football amul saga, amul dor amul yuuxu amul dara fola entraînement rek d'accord acca échauffement dem leen né voilà ci noonu lay introduire daal di koy euh, poser ay questions mom bi nga xamanteni ni c'est le coach euh, du club mu wax ñu tuuti ci taxaway bi ak euh, nan la ko dundee rawatina nak club bu nek bir Diourbel c'est pas facile. waaw comme ni nga waxé yombul mom parce que Diourbel mom bon yombuta liggéey mais yii dafay jafé. parce que comme amna ci wax yoo xam ñun ñun lii amuñu ko won. parce que lii fii vraiment nek na loo xam bëggoon parce que condition yi xam ne demee bu lépp am na mais am na loo xam ne am na fi parce que booy ñu ngi leen ci surtout ci côté jàng bi sax surtout ñun ci loolu lañ gën a insister parce que ñun boo boo amut moyen wala bu ñu demee seen seen école ñu ne ñu nanguwoo jàng dañ lay génne léegi tant que yow li maître li seen li say parents bëgg defoo ko wala maître bi wax ñu ne ñu yaa ngi avancé duñ la andiwaat catégorie bu ndaw beeg catégorie bu mag bi ñëpp.

yàgg a nekk ah, mu amoon ah, initiative bi daal di daal daal di koy <coughs> daal di koy waxtaanee ko ak man bon après ci la gis Claude gisee Claude après ñoom ñu waxtaan léegi ma ne ko man mu ne ma ba ma bëgg daal nga ñëw jàpp ci bi yéen a fi nekk te lii bëgg naa ko fa loo xam ne après ñun dinañ ci booy dinañ si am ci gis seen njëriñ ma ne ko d'accord parce que am na ci loo xam ne man soo ma ci woowee man loolu laa bëgg waaw même bu dul dara sax mën naa suñu jàpp parce que loolu man bëgg naa ko te man sama sama sama la. gisoo ne temps yi Diourbel macha allah mi ngi évolué da gis ne ku ci nekk yaa ngi ci sa secteur d' activité di indi lu bees di teg Diourbel benn affaire euh, te bi aussi bokk na ci innovation de temps yi nga xamante ne nii tey jii indi ngeen ko gisoon naa ne ay club am na fii tout mais sport étude bi moom bi dafa mel ni dafa gën a accentué bu baax a baax a baax euh, gis nga ne daal am nga yaakaar ne daal dafay gën a jëm ca kanam. waaw waaw moo xaw parce que nit ñi bu ñu gisee nga commencé benn affaire rek bu doxee rek ñëpp mën nañ danañ ko danañ si jéem li am solo mooy euh, njaare moom yaatu na li am solo mooy suivi bi lépp loo ci def na am suivi na am suivi boo defee tey weer bii nga amul njëriñ da nga na parce que ñëpp bu ñu defee njaaram day tax mu gën a développé rek parce que ñii suñuy doom lañ suñuy rak lañ bu ñu sañoon tey yii ñun ñu toog ñu ne di seen suñuy doom ñu saran ci télé bi ñu mënoon fierté njaari fierté jurbel ñun loolu la ñu bëgg parce que bu ñu demee tey ñu ngi doog am benn jour boo xam ne au moins ñu ngi naan kii bool bool la jurbel dëkk géej géej nañu am loolu géej nañ ko am mais buñ ñu légui bu commencé di ko am léegi dañu bëgg loolu gën di yokk gën di yokk te loolu ci li rek lañ ko mëna ko commencé ci lañ mëna commencé ci la ci lañ ko mëna amé je dirais pas que c'est une grande première mais en tout cas euh, gis naa ne daal macha allah euh, ils sont sur la bonne voie légui nañ ñu ngi taxawal benn coach xaw ma manager man daal sama yoon nekk ci daal naa ko woowee kat coach wala manager lu ma ci neex rek donc dañ lay poser question rek pour laaj la yow sa taxawaay ci équipe bi et tout ça ak ba xam ndax amu leen benn problème pour réunir les jeunes parce que xam nga yore ay xale dafa métti waaw waaw asalaamaaleykum man it maa ngi lay nuyu di la jox sa yéeguwaay waaw mais ça va amuñu benn problème xam nga nag xale dafa métti yow xale yi moom dañuy ñëw ku nekk ci koom ku nekk yarinam mais dañuy def le tout daal fexe ba ñoom ñëpp ñu éduquer leen parce que xëy nañ suba ñoom ñëpp mënuñu réussir nekk jour au moins ñu fexe nekk des hommes au moins am toute éducation parce que parents ñu ngi def seen wax mais boo bàyyi ci mbedd bi rek yaru mbedd bi rek yaru centre bokkul te ñun dañoo def ay formation au moins am as tuuti ñu leen mën a andil quoi.